ci nomination yooyu dañuy des ba tey ak kaaw kii di euh, Papa Alé hmm. euh, gis nga démb bon ko nommé ñu si ba dañoo jàpp ni lii kat ab récompense la ndax gis nga Papa Alé Niang euh, daanaka sonn na bu baax a baax ci projet bi tëj nañ ko fi kaso daj na fi lu ne grève de la faim doon def ak yooyu yëpp tey jii nu ni moom moo jiite bërëb bii di RTS naam sax ñeneen jàpp na ni c'était un peu prévisible parce que xamoon na ni am na li nga xam ne nag moom moo di mérite boobu lan ngay tontu ci loolu. oui bon mun naa wax ne d' abord c' est pas un cas. ah mm-hmm. Pape Alé c' pas un cas euh, dafa mérité. Mm-hmm. ce post là gis nga ku ko ko yéenewul. Mm-hmm. xëy na euh, da nga bañ la personne. mais doo ne doo teg dara ci table nga ne waruñ ko ko jox. Uh-huh. le projet PASTEF le projet coalition jomay c' est la rupture. bokk na ci ñu gën a xeex rupture ci réew mi boo jël boo boo limee ñett ba ñeent juróom doo ci génne Pape Alé nee naa la fii à compétence égale damay jiital confiance Pape Alé kan moo ko gën a compétent aujourd'hui pour être directeur la RTS ki fi jógee lan la mënal Pape Pape Alé c'est notre génération on en est fier ñun buñ ci bu ñu waxee ci Pape xam nañ bu baax ci ki ñuy wax kan la. Mhm. parce que nous avons fait des choses ensemble. Mhm. nous avons bourlingué des choses ensemble. Mhm. nous avons mangé des beignets sur la place publique ensemble. nous avons mangé des beignets dans la rue ensemble. nous avons été dans les reportages les plus difficiles ensemble. gazé def lu ne. boobu le journalisme c'était pas ça. boobu ñun bi ñu bi ñu nekkee woon dañoo ñëw sóobu ci loo xamante ne démb gaa ñemewuñ ko woon. génération boobu moo tombé période boobu. Mhm. c'est génération 2000. 99 98 2000 ba ba ba nii cette génération là a beaucoup bourlingué a apporté sa pierre ci li nga xamante ne moom mooy la marche du journalisme. Mhm. la marche du métier de la presse. ba ñu koy def ce n'était pas évident. Mhm. da ngay yeewoo ngay dem reportage sa waa kër di jaaxle di la woo toute la journée. surtout que boobu téléphone bariwul. boobu télécentre la dangay dem sur le terrain. da ngay obligé dugg télécentre fay soixante quinze francs benn unité nga woo sa yaay nga ne maa ngi ci jàmm. parce que boobu la presse n'était pas aussi libre. am na loo xamante ne permettre wuñ ko presse bi. Pape boobu bi ñuy wootee rupture il s'est engagé pour justement jëmmal cette rupture. mu ne li ma ci góor ma góobee ko bu nekkoon keneen. day lâché ah Pape Diop Pape Pape Alé a eu toutes les propositions du monde ça je le dis c'est une révélation toutes les propositions toutes du les monde. propositions du amul lu ñu ko proposé wul. Mm-hmm. ci àdduna. Mm-hmm. pour mu bàyyi li muy def ba pare bàyyi ki nga xamante ne moom mooy Sonko surtout que moom. jàppul Sonko dafa nekkoon ci yoonam ci yoonu journalisme. maanaam euh, ci temps manifestation yi Pape Alé Niang def ay live di génne ay révélation mais amoon ñu nekkoon suuf di ko. di ko di ko di ko di ko. mais Pape Alé loolu. mais Pape son problème. Mhm. commencé wul foofu Pape Alé nañ ko fii accident ba jàpp ko. Mhm. yóbbu ko jour boobu man foofu laa fanaan. brigade euh, mooy commissariat central. Mhm. mooy fu ñu woowee brigade de de euh, circulation nu mu tudd. Euh, moom mu nekk en phase centrale. Mhm. mais foofu lañ ko jàppoon ba léegi moom ki mu ac ki mu accidenté. Mhm. ñun gisuñu ko. duñ ko tuumaal ñu naan ivre xaw ma lan ak lan. il a passé toute la journée toute la nuit là-bas moi-même j'ai passé toute la nuit là-bas au commissariat central. avec lui parce la ma doon bañ. moom mu ñu tegal ko loo xamante ne teguwut. defu ko parce que les gens sont capables de tout moment boobu. Hmm. le pouvoir en place était prêt à tout pour briser l'élan de Pape Alé Niang. parce que hmm. l'objectif c'était ça. parce que l'État est informé. Hmm. gis nañu Pape Alé mu ngi teg ay affaire boobu Pape boobu ñëw boobu commencé gul live commencé gul yan nii. mais ñu koy ñu koy ñu koy ñu koy fexel. dafa accidenté corniche ba. naan dafa yàq oto jàmbur ainsi de suite waaw ak ñaari ñeent yu mbëkkante hmm. du fa jar commi euh, yóbbu commissariat constat du ñëw rek mu constaté hmm. du oto c'est pas euh, boo xamante ne yaayu mor doom hmm. ki mu accidenté anam ana otom ainsi de ñu naan non dafa dafa ivre c'est ce que j'avais dit en son temps il faut que il faut mmh. cette intimidation dafa war a jeex mmh. foofu lañ commencé fexel Pape Alé Niang mmh. dama la ne amul lu ñu ko proposé je dis ce que je li may wax nii dama ko xam amul lu ñu ko proposé wu. yan xeetu proposition la woon. non bari na bari na ay dañ lay jox lii nga bàyyi. lan moo nekkoon objectif bi exactement objectif mooy ko mu bàyyi li muy def. mu bàyyi def ay révélation mooy aujourd'hui mu bàyyi def ay révélation bàyyi def. mu ranger wu seen côté. seen côté. d' abord pour mu bàyyi ensuite pour mu ranger seen côté mais papaale ne leen d' ailleurs d' dañuy ragal sax di dem ci moom directement. Hmm. parce que xam nañ tontu bu leen di xaar. ci hmm. papaale mais dañ koy contourner mais papaale da koy yëg. keneen la ñuy yónni. mais keneen la yónni mais loolu papaale laa enduré. Hmm. sans compter maintenant des intimidations yu muy jot par jour. ay saaga yu muy jot par message. ay saaga yi muy jot ci ci ci ci ci ci internet bi. Mm-hmm. amul lu ñu ko lu ñu ko lu ñu ko lu ko jiiñul fii mm-hmm. ci net bi yow gis nga ko. Mm-hmm. mais yamuñu foofu jël ko di ko yóbbu ci ay kaso ci ay kasaw kasaw. ñaata yoon la dem fii prison def grève de la faim. lu nekk mu daj ko ñun ñu jóg ñu naan non kii nekkul journaliste. kan moo gën a nekk Pape Alé journaliste fii. te malheureusement dans notre corporation même am na ñoo xamante ne ñoo ko doon xeex. mais est-ce loolu tey jii du jur benn benn benn zizanie ci biir corporation boobu. non mun non mun na bañ a jur. parce que ndax bu ñu fàttali ko Pape Alé Niang ba ñu ko tegee loxo am na ay naataango journaliste mi toogoon wax ni. Pape Alé Niang ne fait pas euh, du journalisme. justement justement moom laa lay wax moom laa lay mais xam nga Pape Alé di koo xamante ne. Mhm. du fayantoo moo tax damay dalal xelu waa RTS. Mhm. suñu confrères yi Pape du kuy fayantoo. Mhm. Pabale dafa nekk kenn koo xamante ne il est professionnel jusqu'aux ongles mm-hmm. te man jàpp naa ne ni ma ko xamee dina doxal la RTS. Mm-hmm. li may ñaan aussi mais confrères de la RTS mm-hmm. mooy que ñu jàppale ko. parce que c'est la même génération bu réussir nous avons tous réussi. bu échoué nous avons tous échoué. et je ne vois pas qu'il y d'échec connaissant la personne. Mhm. gis nga Pape Alé le jour ou san ne va il va day lem le connaissant day lem bagage am teg dem yoonam. Mhm. parce que kenn du ko tardé je connais la personne. Mhm. je connais Pape est quelqu'un euh, bi bi jiital humanisme. il y a pas plus humain que Pape Alé. mën na tardé ci sa yëf yow. boo leen xamante mën na la bañ a xam sax même ci ci ay mbir nii nga tardel ko. Mhm. parce que tout simplement yow koo ci. je le dis à tout le monde m'écoute. mes mm -hmm. confrères sama confrère kenn duma ci démentir xanaa ku ko bañ. Mhm. donc jàpp naa ne euh, du du du du du nomination. Mhm. parce que ils veulent récompenser. non dama la ne ak compétence égale. dama jël ki ma wóolu ak koo xamante ne dafa bokkoon ci sama yëf. alors lan mooy doon taxawaayu Pape Alé Niang ci yenn organisation yoo xam ni euh, daanaka dañuy protéger journaliste bi wala protéger li nga xam ne nag moo di mbootaay presse bi ñu si bëri tey jii Pape Alé Niang bu ñu ko tegee loxo daanaka da nga doon seetaan ci combat am lan mooy doon taxawaayam ci organisation yooyu. non je pense que kenn ku nekk tu es libre ci li nga doon. Mhm. li nga doon def tu en étais libre. Mhm. mais moment boobu aussi am na confrère yoo xamante ne qui avait de manifester. Mhm. pour que ñu bàyyi ko maintenant ku manifester wul mais yaa xam te amul problème. Mhm. je pense que loolu moom du ci gis dara. Mhm. du ci du ci am haine du ci am benn truc surtout que bon même si ces deux confrères ñoom doon manifester l'essentiel ces deux confrères représentent l'ensemble de la presse. et que d'ailleurs si manifestation yi je voyais pratiquement toutes les grandes organisations yoo xamante ne autour bu doon bu doon bu nekkoon ci suñu manifestation yi c'est aussi ça la confraternité naa bu demee ba finalement euh, cette solidarité mi nekk ci seen génération surtout laa koy waxee. mu mhm. nekk di effrité wu loolu ça pose problème. Mhm. il faut être solidaire. Mhm. Pape Demba euh, euh, comment ça s'appelle Ngagne Demba. Ngagne Demba l'affaire Ngagne Demba dooy nañu leçon nous. bi ñu ko jàppee yóbbu ko ci procureur. tous les euh, greffiers. on dit ñett. nekk benn gisoo kenn ku volé en électron libre di dem. Hmm. ñoom ñëpp booloo jàppale ko mais ñun mi nga xamante ne suñ corporation mu nekk corporation glissante. Hmm. ñun ñoo war a gën a jàppalante. Hmm. mooy nga nekk ci rédaction bi. nga bañ a nekk ci rédaction yi. nga nekk ci nguur gi. nga bañ a nekk ci nguur gi nga nekk di politique nga bañ a nekk politique. en tout cas le journaliste su journaliste. malheureusement ce soutien. avec l'ancien régime nous l'avons pas eu ak les, les les la presse qui était au pouvoir uh-huh. au contraire c'est cette presse qui était au pouvoir qui n'ouvrait pas les portes à cette presse-là uh-huh. c'est cette presse-là qui mettait les bâtons dans les roues de de la presse. Mmh. malheureusement ils n'ont pas rendu César à ce qui appartient à César. absolument et ça mhm. tey jii si wàllum gestion bi foofu aussi bëgg naa nga nga nga dikk si tuuti parce que ñu si bëri jàpp na ni Pape Alé Niang journaliste la professionnel la maîtriser na presse bu baax a baax mais wàllum gestion ñeneen jàpp na ni moom kat foofu xam-xamam euh, xaw na fa daal di sooxee. amul kenn kuy dem ku ñu fal directeur ngay ngay nekk ci gestion. Mhm. dafa am ay bànqaas. direction dafa am bànqaas dañuy naan direction des ressources dañu naan direction commerciale est-ce que Pape Alé la. dañu naan direction euh, de direction DAF. direction mm-hmm. des affaires financières est-ce que Pape Alé lay doon. Mm-hmm. donc c'est une équipe. Mm-hmm. jàpp naa ne sax direct nekk directeur moo gën a yomb le le directeur a une vision. vision bu muy indi c'est la vision du président de la République. et la vision du président de la dafay clair ci wàllu woowu la. yow dina doxaloo ak sa vision. maintenant plus maintenant yow sa compétence ci li nga mën. nga apporter ko. mais quant à dire euh, mënu ko gérer gestion beeg ainsi de suite uh-huh. je pense que ceux qui le disent c'est peut-être ne pas li nga xamante moom mooy euh, la gestion d'une entreprise uh-huh. et lu mu gàtt-gàtt Pape Alé avait une entreprise qui fonctionnait très bien absolument <laughs> à travers euh, la laquelle uh-huh. ñëpp bàyyi nañ ko xel nekkuloon taxawuloon ci mbedd mi di wax dafa lu mu yore woon am équipe donc son entreprise au moins même bu def trois personnes dirigé donc jàpp naa ne RTS bu bu demee foofu il va s'entourer des hommes et des femmes compétents. Mhm. yoo xamante ne ñooñu dinañ ko xelal parce que direction yi noonu la ñuy doxee mooy. Mhm. y a des réunions euh, une situation exceptionnelle. il mhm. y a des réunions hebdomadaires il y a le tout c'est pour peaufiner maintenant si réunit véritablement un, un nombre bien déterminé de compétence autour de lui. Mhm. et si ça va être le je pense que li nga xamante ne moom la bëgg. Mhm. dina ko def au niveau de la RTS. Mhm. bañ a def comme par exemple l'ancien directeur où il a tiré la couverture sur lui-même. Euh, di boom di di boom bi du buum mi. et puis euh, donc euh, la finalité c'est quoi c'est que la RTS aujourd'hui est est complètement divisée. et c'est ça qui attend Pape Alé. c'est de réunir la famille RTS. la presse est une famille. la RTS est une famille. cette grande mission de Pape Alé. une mission délicate très difficile. mais s'il se retrouve s'il trouve autour de lui des hommes et des femmes compétents. jàpp naa ne cette mission dina ko réussir parce que ça va être la première mission. tey am na ñu bëri ñoo nga doon dégg ci RTS déggaatoo leen. gisaatoo leen. parce que ils sont dans ce qu'on appelle ils sont mis en frigo. bari na injustice bu fa am. trop. Mhm. donc ñooñu nan la ñuy def ba retrouver ñooñu regrouper ñooñu. Mhm. indiwaat leen autour de la maison. dans la maison ñii ndekkendoo ñii añandoo ñii reerandoo. Mhm. la famille de la RTS va se retrouver au grand bonheur des Sénégalais. Mmh. qui ont une seule télévision il faut le dire. Mmh. c'est la RTS. Absolument. c'est ta télé. Mmh. c'est ma télé. c'est notre télévision. bokkul ak trois cent 313 digital. c' est pour Diossi. c' est pour Bijou. Mhm. c' est pour Silla. Mhm. bokkul RTS sa dërëm mu ngi fay dugg. Mhm. waaye fii man sama dërëm dugg fi. RTS sama dërëm a ngi dugg foofu. yow sa dërëm a ngi dugg foofu sa dërëm dugg fi. c' est notre télé. absolument et cette télévision. bu ñu doxee ñu doxal ñun. parce que c'est notre télé. c'est pas le, la télévision du pouvoir. c'est la télévision du Sénégal loolu moo tax ñuy ra tuddee ko radio télévision du Sénégal. exactement donc nañu ko jàppee noonu je pense que bu ko defee ça c'est la ça loolu moom vraiment mooy mission. parce que euh, dama ci xam tout as tout. li nga xamante ne moom mooy RTS. ña fa nekkoon. Mhm. ñu ngi seen kër. di jot seen. salaire. Hmm. waaye dénkuñ leen benn liggéey. Hmm. am na sax ñoo xamante ne bëgguñ sax ñu ñëw ñu ñëw télé ba am ñoo xamante ne dañ leen sax interdit télé ba. dégg déggu déggu nu wax ji de répété waatal tuuti. foofu <laughs> foofu RTS am na ñu fa nekk. non RTS. Hmm. am na ñoo xamante ne. c'est des agents de la RTS. ñu ngi ñu ngi seen kër. fin du rek la ñuy xaar jot seen salaire. maanaam xëy si wuñu. xëy si wuñu liggéeyu defuñu dara. parce que dañ leen boolewul ci dara. dañ leen tere sax am ñoo xam ne dañ leen tere sax ñëw foofu. Mhm. am ñoo xamante dañ leen tere sax def seen émission. da leen beddi ñoo xamante seen télévision seen émission dañ ko dagg. Mhm. am xamante ne euh, euh, voilà euh, boo ñëwee foofu dañ lay xoolee bëtu dëmm. ñoo xamante ne. donc mhm. plein de choses yoo xamante ne. des compétences yoo xamante ne tey. ils sont à ñoo xamante ne tey si la famille était regroupée. la RTS. aller dépasser ce stade-là je ne dis que la RTS ne na ñooñu moo tax mu demee noonu mais am ñoo xam ni. non non euh, je pense pas que mu xam mooy faute commise. Mhm. boo defee faute on te sanctionne je suis parce que mën na jël exemple ci ki nga xam ni euh, moo di euh, Rukayatu moom loolu loolu la ñu wax ni dañu ñëw wax ko na def sortie ci Ousmane Sonko mu bañ ñu sanctionné ko nangu. li nga xam nga loolu du faute mhm. non non dafa annoncé l'arrestation de Ousmane Sonko. Mhm. faute mooy nga def loo xamante ne jaaduwut. Mhm. ñu sanctionné la. waaw ah, mais ñoom jàppee nañ la la sanction est graduelle. gis nga ci liggéey. Mhm. la sanction est graduelle doo ñëw nii rek nga def dara rek ma ñëw rek ma ne la yow. Mhm. dàq naa la vous imaginez. naa def nga dara rek dàq naa la. <laughs> c'est graduel maintenant bu nekkee une faute grave lourde. loolu ça réagit au haut niveau. ñu ne ah non kii nañ ko def nii. Mhm. mais sanction dans le cadre de ce qui ne fait pas de faute. Mhm. le professeur de philosophie mën nga jël fi texte léegi. Mhm. nga dictel ko mu def une faute. absolument la faute y jë que Dieu qui ne pas de faute. mais min mbindeef amul mbindeef ci suuf bu dul def faute xam nga ñu ngi nekk fii di wax. mën na am ñu ngi faute. absolument te yëguñu ko. mbindeef moo mel noonu. kon nit ki bu fóotee dañ koy wow ci njekk ak teraanga. Mhm. nga ne ko ci sa liggéey bi nga nekkoon. Mhm. def nga lii def nga lii. Mhm. buy sanction di am ñu ne la ah ñii de lañ lay sanctionné. bu fekkee ne sanction yi am ñu naan la xam nga le fait rek lu woo ko. c'est une sanction. xam nga dafa am voilà dafa am benn euh, sortie euh, bu nu mosoon def foofu ci bi RTS ba tey mhm. euh, tudd fa jabaru ki nga xam ne moo di Farba Ngom mhm. ñu ni wax ni kat moom foofu doon liggéey mais toog na presque 12 a ñëwu fa liggéeyul te mu jot li nga xam ne nag moo di salaire am loolu bari na ci réew mi de hmm. loolu toog muy dox hmm. loolu mooy toog muy dox xam nga démb rek maa ngi koy wax mhm. gis nga reddition des comptes yi du chasse à la sorcière à moins nga nekk sorcier Mm-hmm. boo nekkee sorcière dañ lay chasser nag. Mm-hmm. waaye boo xoolee. Mm-hmm. jarbaatu ministre yi. jabaru ministre yi. famille ministre yi. DG yeeg ainsi de suite ñoom ñëpp tey daanaka ñu ci bëri soit am nañ CDI dans les entreprises. wala CDD dans les entreprises wala boog signal nañ leen ñi ngi doon fayeeku le mois te fekk liggéeyooñu réew mi bokk na li ko moo tax dañ ko war a yaatal révision de compte. dañ ko war a yaatal ñi def audit. de la fonction publique. c'est vrai si réduction yooyu. du ñàkk dinañ si dikkaat léegi mais si nomination yi aussi euh, bëgg naa nu waxtaanee kaaw ki nga xam ne moo di général Moussa Fall ndax gis nga moom aussi euh, démb tekki nañu ndombal tànkam daal di koy euh, remplacer ak kii di général Martin fay tey jii général Moussa Fall naam sax ñu si bëri ñu ngi tudd responsabilité am ci li nga xam nag événement yi fi amoon dalee ko 2021 jàpp li nga xam ne nag moom moo di 2024 est-ce que tey jii yaakaar nga loolu.